alhamdulilah ñëw leen seen revue de presse lamb ajjumay tey ji la ca gën a fës Rock Mbalax jël na kàddu wax ci combat Balla Gaye 2 Boy Niang ma nga xam ne ci combat boobee dina difficile lool ci Balla Gaye te bu may joxe favori yi kii di Boy ñaa laa koy jox moo gën a féete xale xeex ba tamit moo ci mën bu yàggee moom la gën a arrangé suñu lamb mu ngay ñëw ci wàllum sécurité ba ñuy xaar ci boobule combat suñu lamb mu ñuy xamal ne lu toll ci police yu baree bari daanu leen mobiliser ak ci wàllum gendarmerie tamit daanu ñëw assister li nga xam si ni moo di lamb ji ngir lépp mën a jaar yoon suñu lamb mag ñuy xamal ne la dëgër de ñàkk teewaayam ci ëppan press bu Balla Gaye 2 jaaxal nañu bëri ci njabootug làmb rawat na ñi nga dëkkee fële nga xam si nii moo di géejawaay suñu lam mu ñu xamale ku mel ne Thierno Gaye tamit ñu daan ko gis ci ginnaaw Balla Gaye 2 moom it keroog open press bi kenn gisu ko woon place am kii di buuse mbër moo fa nekkoon nekk li nga xam si ni moo di préparateur mystique di jàppale Balla Gaye 2 ci wàllum gàllaaj suñu la muñ xamal ne ñaari mag ak rakk yi tamit ña nga fa woon les frères Ndiaye mu di Aziz Ndiaye ak ki nga xam si ni mooy Baye Alé Ndiaye muñ xamal ne ñoom fa woon muy Baye Ndiaye ak ki xam si ni moo di Aziz Ndiaye keneen xam si ni classe na fa moroomu mbërëm moo di guy gi ñu la muñ xamal ne na fa Lac de Guiers 2 wax lan moo tax Lac de Guiers 2 ñëwul ak yu waaye tontu du forox ndax Lac de Guiers ko ñoom ñaar ku ci nekk yaa ngay def ci li nga xam te ni moo di site internet yi suñu la mu ñu xamal ne nëga ni si daaw la premier janvier Balla Gaye ci la laale woon ak ki nga xam te ni moo di Bombardier seen ñaareel bi yoon Bombardier di koy daan bi yoon tamit ma nga jëmaat ci la premier janvier ci kanamu ki nga xam te ni moo di Boy Niang suñu la mu ñu xamal ne premier janvier nekk na date boo xam te ni jig na ki nga xam te ni moo di Balla Gaye 2 suñu la mu ñu xamal ne ban plan de relance relance lañ mën a tegal ki nga xam te ni moo di Alliance Baldé ngir mu mën a relancer carrière am mën a débat ci karam dafa fi mu ma ngay bëgg a bëri suñu làmb mu ñu xamal ne Ada Fass ñent yi faaw mu am ko ngir mu mën a daan Zarko faaw mu am doole faaw mu am endurance faaw mu ñemee tamit li nga xam se ni moo di bagaar bi waaye la muy def faaw mu am si lucidité faaw xel mi dal ci mu mën koo def ci teyaayu bakkanam ngir mu mën caa am ndam ndax ndaanaan lay dajal de champion kon ñent yi faaw Ada Fass gànnaayoo ko ngir buy armé jiw di jàkkaarloog Zarko mu mën ko mën cee génn suñu làmb mu ñu xamal ne caatu Yoff ak Bulldozer def nañ seen jàkkaarloo bu mujj niki démb waaye ñoom ñaar xas-xas loo nañ ku ci nekk ne bu jour ba di nga dëggal sa bopp ñu daal di xeex daal di bëri daal di def